bokki julit yi bokki taalibe yi amaat nañ mbégte di sant borom bi subhaanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ba mbooleem naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ci ngërëmul sëriñ bi bokk yi jataay bi waat rek la muy jataay boo xam ne ñu ko yëkkati ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Saalihu ginnaaw bu mu santee jullit yëpp sant taalibe yëpp sant bokkam yëpp feddliwaat ak laxasaayam ci liggéeyal sëriñ Touba Xaadim Rasul di ñaanal kilifaam di sëriñ Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi loolu doole ak wéram sëriñ bi nag yëkkatiwaat ay kaddu di talalaat loxoom ci liggéey bi nga xam ne da baaxoo liggéeyal lislaam ci tool ya xam ngeen ne tool lagan ak siwaat na ginnaaw bu mu santee ña ñi di ko ñaanal sun borom tabbal ko jannatul firdawsi wanale kook sëriñam ba ak way juróom ba waaye di ci fàttaliku ñeeyo xare wa nekkoon mbuur di sëriñ Mbay Jóob di ko ñaanal yàlla yàlla na ko sun borom wanaleeg sëriñ Saalihu Mbàkke di ci fàttaliku alaaji Maas Ñing moom itam doonoon jàmbaar yàlla na ko sun borom wanaleeg sëriñ Saalihu di ñaanal ñi fi des ñëpp nag yàlla sàmm leen te bàyyi leen fi lu yàgg lool ñu àndal liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bokk yi sëriñ bi nga yëkkatiwaat ay kàddu di woote waat ci ngóobum Sañoma di daaray lagan woote boobu nag sëriñ bi saa koy yëkkati ku ne xam na daaray lagan dafa am jëwriñ jëwriñ ji nag di doom ci sëriñ bi di taalibe waaye di soppe di alaaji Samuel Sarr mi nga xam ne ko digganteem ak daaray lagan ku ne xam ne mbokk yi nga xam ne ñoom la ñuy bëgg a di ci jiital njabootuk sëriñ Issa Jenn te ne ci di sëriñ Abdou Jenn sëriñ bi di ko ñaanal yàlla sun borom yàggal ko fi di ci teg njabootuk sëriñ Naar Jenn te ne ci di sëriñ Siidi moom sëriñ Naar ak mbooleem ay rakkam sëriñ Yuusu Jenn mi nga xam ne mooy seen jëwriñ nekkal leen ci kër di ci soññi mbooleem njaboot gi yépp nag di leen xamal ne liggéey baa ngi noonu bu sëriñ bi tegee ci loxoom rek Boubou Guèb Serigne Fallou Mbacke Malka njabootu Serigne Aliou Seck wanaar gi nga xamante ne bii ku ne xam ne ne liggéey boobu buñ koy tudd ñoo tax jiital ci Serigne Abdoulaye Salam Seck xalifa Alaaji Aliou Seck Serigne Aliou Seck xalifa Serigne Basirou Seck Alaaji Seex Bamba Seck Daarul Xudóos Serigne Mor Jabel Seck Daaru Wanaar Serigne Moustapha Roqeye Ndaamal Daaru Serigne Seex Daaru Seck Xawsu Serigne Abdoulahi Seck Touba Saloum Serigne Babacar Seck Touba Saloum Serigne da Darame Saaxo Mati Serigne Seex Darame Bayda di ci soññ itam waa dëkk yi nga xam ne ñoo wër Saloum te ñoom ñëpp ku ne xam leen ci liggéey bi waa kër Soose ak la ko wër kër Majabel ak la ko wër waa wàkk nguna ak li ko wër Touba Sokone ak li ko wër Ndarame Ndimb ak li ko wër Kajmor ak li ko wër Ngarna ak li ko wër Kaffrine ak li wër sëriñ bi di ci soññ bu baax Murid Sarex ba fa nekk di jëwriñ di Alhaji Abdoulahi Wilane sëriñ ba koy soññ ci liggéey ba di ci soññ it nag ñi nga xam ne ku ne xam na seen taxawaay ci biir liggéey bi di sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Modou Khayri sëriñ Cheikh Modou Fall Baye Fall sëriñ Khadim Tine Mbacke Bawal sëriñ Khadim Diouf ak sëriñ Modou Diouf rakkam boof sëriñ Fallou Kane Tewru sëriñ Jiili Lo Kër Ñang sëriñ Souley Gaye Sajaratu sëriñ Bàcci Diop Malka sëriñ Fallou Sarr Korcel sëriñ Ousmane Loum Korcel sëriñ Moustapha Guèye Daaru Taneeful sëriñ Abdou jong ak waa Gosaas sëriñ Abdou Kontay Lagan sëriñ Babacar Ndiaye Pësteef Serigne Modou Diagne Lo ñoom regu saas ak Serigne Moustapha Lo ak waa ñoom regu saas Serigne Amdi Fall Cekki Serigne Moustapha Lo ak waa Cekki Serigne Mourtada Ndoy Ndoyen Serigne Bàcci Boussa Param ak waa Daayira Masalikul Jinaan Serigne Cheikh Sarr Ndoka Sarr Serigne Khadim Sarr Ndoka ak waa Ndoka Sidi Gépp ak waa Yabal Gépp Serigne Salihu Diop ak waa Mbour ak li ko wër Serigne Boubacar Ñing tuba ak njabootuk Serigne Mass Ñing Gépp Serigne Ibrahima ak Ngom Buqatul Mubarak Serigne Lamine Diallo Touba Parcelles ak waa Dakar gépp Serigne Talla Wade benn barak Serigne Ousseynou Kane Dakar Serigne Assirou Wade Kaolack ak li ko wër Serigne Alhaji Wilane Ngatu Malick ak li ko wër Thiès ak li ko wër gépp bàyyiwuñ fa kenn ci njiitu Serigne Abdoulaye faal ak Serigne Ousseynou Sakho Serigne fallu sek ak Serigne Modou Seck ca biir Saloum Serigne Cheikh Mbacke Anne chef de village su Aneen Serigne Maysa Gueye ak waa daayira ba Serigne Ndiamé Anne Mbodiène ak waa daayira waa daayira ba ci njiitu Serigne Bàcc Mbodj ak Serigne Daouda Mbodj Alhaji Saliou Sène Bambey Serigne Thierno Jonn Ngoya Njaañ ak li ko wër daayira téyéri Touba ci njiitul sëriñ Bay Sarr ak Serigne Baara Ndiaye daayira soxna Ndey Jaw Njaañ ak li ko wër daayira ouvrier Touba ci njiitul Serigne Saasi Ñang ak Serigne Mor Gay daayira soppay Serigne Saliou yëpp ci njiitul Serigne Ibrahima Sène transporteur yi bàyyiwun kenn alaaji Mbay Touré Serigne baa ngi koy sant ci li wéy ci di ko soñ ci li ñu dëgmal alhaaji Abdoulahad Ndiaye Dakar Serigne Cheikh Gueye Mbana Serigne Xabaan Aan campement Ngeexoox Serigne Baara Seck ak Serigne Abdoulahi Ñang Kaolack Serigne Gille Touré RTS ak mboolem ñi mu daan àndal sëriñ bi bàyyiwul kenn mi ngi ciy soññ ñëpp liggéey bi na ne muy doxe ak kàddu yi sëriñ bi nga xam ne moom la ciy yëkkati soññ kilifa yi danañ ko bàyyi ak sëriñ Yuusu Jenn mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi bu noppee sëriñ Ibrahima Xalil Lo mi nga xam ne moo ne ca daara ji di jëwriñ ja danañu leeral liggéey ba na mu demee kon ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Yuusu Jenn moom sëriñ Naar bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu suñu kilifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mu Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral gën koo jàppale defal ko ndam ci liggéey bi muy liggéeyal waajur mu tedd ak Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu sababu yëkkati kàddu gi nag mooy soññee ak fàttale ngóobum daaray Lagan ginnaaw bu sëriñ bi jiitalee ay cantam ak ay ngërëmam ci liggéey yi ko jiitu woon mooy liggéeyub Xelkom ak Touba Darou Salaam ci taxawaay ci kilifa yi taxaw mu ngi jiital kàddoom tam ci sant Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy mooy xalifa général des mourides di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te wéral ko dañu yàgg ànd lool ci liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba sunu borom doolu leen cee defal ay ndam di wax ni nag ngóob mi ñuy waajal sëñ baa ngi wax ni mi ngi ci tàllal loxo murit yëpp di ci séntu ñëpp tamit ni mu leen ci daan séentoo te di leen sant di leen gërëm ci taxawaay yi ko jiitu woon liggéey bi nag am ngóob la saañu ña ngi koy defee ca lagan ñu jàpp ko euh, le 20 novembre dëppoo ak gaawu départ bi nekk le 19 novembre incha allahu taala muy gaaw bii nu jëm dellu si ak jàmm incha allah sëriñ bi di ci woo murit yëpp nag di ci séentu ñëpp di ci beralu boote itam comme ni ko sëriñ Fallou leerale léegi Cheikh Abdou Latif Diène mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa jenn ak sëriñ Sidi Naar mi nga xam ni mooy xalifab sëriñ Naar jenn di ci woo itam jabootug Cheikh Issa gépp baywul kenn di ci woo waa Ndiène Lagane di ci woo waa Xay Mbayaar ci njiital sëriñ Sidi Diène xalifa sëriñ Basiiru Jenn di ci woowaa Téwuru Ngaari di ci woowaa Daarul Mannaan di ci fàttaliku bu baax itam sëñ Mujub Tànni mi nga xam ni moo nekkoon xalifa Daarul Mannaan di ko ci ñaanal bu baax ndax danaan ñëw di ànd ñu liggéey bi te ren jii fekkiwu ko ñu koy ñaanal suñu borom dolli ci moom yërmande ak di ci woo naarga di ci woo waa Daare Siidi di ci woo waa Mesare ci njiital Serigne Abdou Touré di ci woo waa Cele ak waa Curongeen waa Daaru Salaam Niis Xaybarka Baxdaad Lansar Mbar Touba Njenne di ci woowaa Touba Lansar gi ci Touba ci njiital Serigne Cheikh Diop di ci woowaa Ndand Fall ci njiital sëriñ Dame Faye ak ñi mu doon àndal di ci woowaa Njabel ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak Serigne seex Ndak di beral ak yi tam su mbokkum taalibe Samuel Ahmed Sarr ci taxawaay bi doon taxaw ci liggéey yi te di bu baax te di ko ci séntu sant bu baax itam Babacar Touré ci taxawaay xelkom yi ak yi ko te di ko xaar tam ci liggéey bi di wax ni ñu ngi koy jàpp te di ci séntu ñëpp dal na suñu borom yóbbu ñu yegg ko ci jàmm daje ci ngërëmul Serigne Touba ak taw fii xam di ko ñaanal itam suñu borom yàggal ko lool te wéral ko lool ñu ànd ak ñu yàgg ànd ak moom ci liggéey bi barkeb Serigne Saliou jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim ku tudd am góob nag sa xel dana dem ci eh, jumtukaay buñ ko war a defee te loola mooy ngóobaan ak lu mën a lippi ak takkoon gu mën a takk kon loola ñu ngi koy fàttaliwaale kuy ñëw te am loo mën a takke walla loo mën a góobe wala mm, lu mën a mën a lippi nu fas yéene ko fa indaale soo defee kuy ñëw itam nag yoonu tëli moo gën a ratax ci oto yu mag yi su ko defee képp kuy jóge boori sow wala mbuur ci wet googu jaar si Gossas wàcc si Malka moo gën a gaaw ci yow bu dee Touba itam bu dee oto yu mag yi li si gën a gaaw mooy jaar si Mbar boo ñëwee moom itam nga wàcc si Malka sëriñ bi defoo na fa ab boo xam ne ci tali bi la soqi ko ba ca buntu daara ja oto yëpp mën nañu agsi foofu kon nag sëriñ baa ngi ciy séntu ñëpp di ñaanal ñëpp sunu borom indi leen si jàmm delloo leen si jàmm te ñu am fa ngërëmu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah ak warahmatullah asalaamaaleykum mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu ci turu sëriñ Seexum sëriñ Saliou. ci biir loolu si gannaaw liggéey bi mu daan jox ñun waa Saloum joxati nañu ko ci turu sëñ Modou Seck. sëñ Fallou Seck mi nga xam ne moo doon suma mag ji nag moo daan jiite ñëw fii sëñ Modou Seck mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp nag ba taxawal Saloum yëpp ñu sant ko liggéey boobu ñëpp marché bokk ci kon moom itam moom sëñ Modou bañ ko wooyee am na ndaw yu ma yónni ci biir Saloum ci kilifa yam ko séqal du tey itam nag sëriñ bi ak mbégteem ak bëggam sëriñ Touba ak bëgg liggéey bi yaatu ak yéene ko ñëpp dana tax ñun ñi dañ daan jógee Saloum dem jaar ci sëñ Modou moomu ndax sëñ moom bëgg ñi bëgg mu yëg ne liggéey sëriñ Touba rek ko ñor loolee daan nañ daan nañ fa dem ci ay kilifa ba ren sax barab yëpp des si mën a dem waaye am na ñoo xam ne duñ leen ci mën a ñàkk tudd muy lu mel ni sëñ Modou Seck moomu ak ñi mu ko seqal ci ña ko wër muy gune yi nga xam ne léegi la ñuy lijjanti seen bagage indi ko ngir jëmi Serigne Touba ba ci des itam mooy ku mel ni sëñ Cheikh Ibrahima moomu baabu Babacar Seck ñooñu nga xam ne kii lim na leen ba noppi waa réew mi yëpp lim la ak ñi daal man neexut wax daal yal na yàlla mu yeggale liggéey bi na ko ni ko sëñ Fallou si la si wàllu ko ñëpp dégg ci jàppee ko jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi bàyyi ko ci kilifa yi alaaji Samuel Sarr nag nee na mi ngi soññ xaritam yi mu daan àndal yëpp nag bàyyiwul kenn di leen xamal ne daara jooju rek la am liggéey bi it moo ko gën a ñor ci ak dundam képp koo xam ne kon mbégam sa mbég la nee mi ngi lay woo lagan di la ca séntu la 20 incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu